encore une fois comme il l'a man man man en fait li ma njëkk bëgg a xam mooy fu fu ñu jëm ak grève bi. Hmm. est-ce que dañuy nekkaat si situation boo xam ne année bi fay menacé ou pa parce que il faut ñoom ñu wax ñu jusqu'où dañu pare pour dem. loolu pour man question bu am importance la beneen bi moom mooy que si li état bi diggee woon 2018. Euh, oui lan la si def concrètement. Hmm. parce que li mu ci deful la ñu gën a wax waaw mais li li ñu ci def man man man bëgg naa ko xam parce que c'est da da mën a teg ci balance bi pour xam un peu mhm. ñoom fan la seen seen mbir mi toll mais parce que bu ñu amee bu ñu amee opportunité wax ci mbirum enseignant yi mhm. man damay dem rek aborder ci ci ci li Charles wax moom mooy que pour ñun dañu ñun ñii toog fii peut-être que euh, yàlla dimbale nañu ba à la limite sax ñu mën a jël suñu doom yi des fois di leen yóbbu ci école privée yi. Mm-hmm. parce que yaakaar nañ ni foofu lañuy gën a amee njàng mu baax. je pense que bés bu ñu defee le sens inverse jëlee ci privé bi di dem ci kii bi bu moment boobu la ñu mën a wax waxi njàng. Mm-hmm. mooy li ëpp solo mooy ni ñuy moderniser suñu njàng mi am nga jamono aussi jamono dafa dox mm-hmm. te yori euh, livre. di liir pendant dix ans ah te jamono nekk feneen ñëpp defandoo ko doo avancer te mënuñu bàyyi ba egg si benn niveau bëgg a tàggat nit ñi donc man su ma xoolee enseignant bi dama bëgg a gis avenir sama doom bi mais pour ma gis avenir sama doom bi il faut ma xam enseignant bi nan la outillé pour jàng ko li ne ci xelam ak li ne ci ci kanamam parce que aujourd'hui li ne sa xel rek doyatul li ne sa kanam muy jumtuwaay bi def ci bokk damay wax tout le temps que tey jii nii question boo mun munti am boo taal mënee taal ordinateur soo ko posé. Mhm. kan mooy premier euh, président des États-Unis ñëpp en deux secondes nga nga trouvé ko ñun amuñu woon loolu. ñu bëri amuñu mais nit ñi daan def donc pour man njàng dafa gën a yomb te dara bu gënee yomb dañ ciy profité xam nga ñun dañ ñu coloniser France daf ñu coloniser. dafa am solo ah. parce que dañu ñëwaat fii rek jëlaat di jéem a récupérer pétrole bi def ci ay autoroute jël euh, euh, distribution bi jël lépp. ñu ne woy teg nañu loxo mais ci ak ci lan la ñu teg loxo. Mm-hmm. est-ce que amuñu benn benn benn côté boo xam ne ñun dañu war a démissionner ci côté boobu jéem a seeti leneen chaque fois je le dis. aujourd'hui pour man li njëkk li am mooy ci école publique Sénégal il faut ñu toog li malal wax dëgg la pour man pour que nit ñu mën a jàppale effectivement ñu fay arriéré yeeg affaire yi le plus important mooy que dañu war a toog ñu ne mm-hmm. fan la ñu toll et fan la jamono toll. parce que question boobu suñ ko posé wul émergence bi ñuy wax. candidat à l'émergence ak et tout ça mënul dem parce que euh, ëllëg dans quinze ans fii compétition bi fu muy nekk am na am na yenn yenn xam-xam yoo xam ne boo fa nekkul doo ko doo fa dem dafa am important donc pour man njàng mi bi technologie ñëwee dañu ko waroon saytuwaat. adapté ko ak li nga xam ni mooy jamonoy tey dañuy am ñun ñëpp ay doom parce que aujourd'hui da ngay am sa doom mu am opportunité laay waxa ah, di jàng si ay école yoo xam ne day am accès. ak yenn nu internet ak yeneen kii. mais nga nga toog au bout de dix ans après nga waxtaan ak moom yow si sa bopp mi nga xam ne yaay bàyyam nga foog ne am nga xam-xam pour da nga naan sa xel mais kii moom ëpp xam-xam parce que tout simplement cet enfant là a accès. à à à l'information. parce que lu ñu yàlla lu fu jamono toll yàlla moo ñu ko dim il faut je pense que ñu intégrer loolu te te pour moi c'est le vrai débat tey état bi bu ne woon ok li ma jëloon ci engagement yëpp respecté naa ko fay nañ leen seen arrière depuis 2008 ça change quoi fondamentalement est-ce que dafay relever le niveau suñu doom yi est-ce que nit yi suñu doom yi est-ce que li ñuy jàng tey jii nii ah le fait que arrière bi fayuñu ko moo tax mu suuxet non est-ce que ñiy jàngale tey am nañu xam-xam bu ñu mën a delloo suñu doom yi est-ce que des fois ñi ñuy jàngal sax gënuñu leen am accès ci c'est une réalité donc Afrique nii bu ñu bëggee pour man ñu ñu am prétexte problème yu mel nii pour teg ko il faut ñu gën a profiter si gën a creuser mm. ñu ne ok ñun dañu bëgg dañu bëgg njàng mu baax njàng mu baax fan la suñu njàng tool lan la ñu war a jàng tey tey jii nii suñu enseignants yi ñaata prof d'anglais ñoo am si suñu enseignants yi pour centage bi par exemple mais c'est une question importante quand tu parles le français boo jógee fii nga dem fii sous région yi nga jógee nga dem France jaar tuuti Belgique tuuti Suisse mais après muuma nga. tu es analphabète. tu es analphabète. mais est-ce que tey jii waruñu toog ñu ne ci monde bi ñuy waxi gaz gi pétrole qui se qui se calcule en dollars. Ah, ñu ne tey jii nii. ñi ñi war a nekk suba dégguñu kii boobu est-ce que anticipation boobu waruñu ko def est-ce que waruñu dépasser lépp pépp ñu nekk et pour man yéen li ngeen di def ni ñun dañ leen war a déjà évaluer ñu ne suñu njàng njàngal jàngalekat yi tey jii nii ban genre jàngalekat la ñu am balaa ñuy wax yan genre élève la am après nag effectivement bi bi papis naan euh, digee bor mooy mooy fay faat waaw mais xam atte bor mooy fay mais en fait en réalité nit ki dina la xam ni dara new fa. loolu moo ñu dal. <laughs> xam nga nit dina la dig. Hmm. nee la naa la fay. fekk xam na ni dara new fa pour parce que. non enseignant bu grévé ba affaire bi tar xam nga état lu muy def hmm. état bu mënee calmer le jeu ba gars yi delluwaat école hmm. année blanche bañ a am mais dina la dig ne la ay hélicoptère sax ne leen jëli seen kër yóbbu leen mais et puis beneen affaire cest pour mu répondre cest à on va les conduire à Touba à Tivaouane pour régler la question. <laughs> alors ya y a eu plusieurs interpellations. merci beaucoup comment celle déjà par ni mu waxee est-ce que fay leen euh, bor bi en réalité ça change quoi. merci beaucoup mais am na ay clarification yu ma war a def balaa may. tontu très rapidement très hmm. euh, d' abord par rapport aux enseignants euh, aussi les enseignants aussi du ñu ay misérable nag loolu tamit il faut ñu ñu clarifier ko. Euh, non carnet carnet café beeg yooyu tax ngay waxal non waxul loolu. Hmm. mais dama ne yow yow yow waxoo loolu. non waxuma vous êtes loolu laa wax je suis d' accord ah, non dama ne waxoo loolu. mais comme que dafa am ñuy seetaan ñoom. mën nañu comprendre neneen mm-hmm. li mu wax ah. te fekkee moom waxul lool c'est pas ça le sens oui, c'est ça. les enseignants euh, sont loin d'être des misérables xëy na li mu wax noonu loolu am na loolu li ngay planifier ni ngay gestion budgétaire la mm-hmm. mais ku ne également quand un travailleur carnet bi bu ñu ko gisee ak bu ñu ko xëy na carnet enseignant yi la gis mais fii tout travailleur tout salarié ku am ay revenu li <laughs> ngay gérer sa budget par rapport à tes il faut nga voilà am na benn waa ji Sénégal émission bu am solo. ah ci émission yi. ay par àjjuma lay am. boo ko romb ci couloir yi. mooy carnet ah. ah mu ngay carnet mu ngay carnet moo tax moo tax day foog ni journaliste ngay wax dina xasu. yaa di carnet la yor. voilà donc Charles Charles Charles s'il te plaît on est sérieux là. bu jàppale Bouba boo ko rombee mu naan ah man journaliste may waxal ma ne ko déedéet moo tax bu jaawale la semaine dernière. Bouba Bouba tu es dans la petite vengeance. tu es dans la petite vengeance. <laughs> bon loolu benn la beneen bi nañ déglu nañ déglu Souleymane c'est important mais Souleymane il faut dire aussi s'il te plaît Souleymane vraiment kenn waxu ko fi kenn xalaatu ko fi. wax naa je suis d'accord moo tax ma préciser man sama famille pour te dire ay famille wu jàngalekat lañ man maa jéngu maa jéngu def journalisme. fa nga jël carte xam nga je te promets merci beaucoup. parce que xam naa ko. merci xam naa ko mu teg enseignants yi aussi. voilà loolu la quoi. beneen bi mooy les questions centrales xam nga bu ñuy wax toujours bu ñuy wax euh, jàngalekat yi xaalis la ñuy wax xam nga lu tax loolu mooy lii gën a fës parce que souvent jafe-jafe yi ak gouvernement bi foofu la loolu mooy éducation muy santé mooy secteur boo jël négociation souvent fii muy amee ay difficultés c'est sur le plan financier loolu donc moo tax mais boo seetee suñu plateforme revendicative gis nga li ngeen di wax nii la question du déficit de personnel enseignant. Mm-hmm. mu ngi suñu plateforme revendicative. Mm-hmm. parce que nous savons tous que aujourd'hui dafa am déficit. dañ ne bu ñu bëggee am une de qualité. réaliser également li ñuy wax déficit mooy lan enseignants yi matuñu. matuñu. Mm-hmm. bu ñu bëggee réaliser en nombre suffisant bu ñu bëggee réaliser li ñuy wax l'ODD numéro 4. boo xam ne ODD mondial la. pour am une éducation de qualité pour tous. il faut avoir des enseignants en mais aussi des enseignants bien formés loolu ñun dañ koy dans nos plateformes revendicatives la formation des enseignants moo tax actuellement on dénonce situation bi xam ne moo nekk au niveau de la FASTEF et dans certains établissements xam ne dañuy gérer formation yi munoo am pour avoir la qualité c'est d'abord des enseignants de qualité c'est quelqu'un qui est bien recruté qui est bien formé mm-hmm. qui est bien évalué, mmh. mais également qui est bien motivé. Et qui Exactement. moo tax la question des abris provisoires bi ngeen wax noonu loolu mi ngi suñu plateforme revendicative. Mm-hmm. boo gisee gouvernement dafay def irrésolution des des abris. c'est mm-hmm. suñu plateforme revendicative donc la ko jëlee. la question de la formation question abri yi question également donc euh, kii bi même par rapport à l'enseignement mooy au niveau donc du a au niveau du CELS ñu éclater la petite enfance. mais il faut ñuy dugg nii balaa ñuy fàtte mais gars yi saa yi ñuy régler problème mu bu ah, que il faut que enseignants yi ñu def nombre bu doy wala dara non non non non déedéet xam nga xam nga xam nga koy mooy lan mooy souvent par exemple si beaucoup de questions dañu dem accord accord accord mm-hmm. mooy boo li nga doon wax noonu sànq noonu lan la ñu d'accordoon te def nañ ko wala lan la ñu d'accord te defaguñ xam nga xam nga li ñu defagul Euh, li ñu li ñu deful wax naa si mais doyul sax mais am na loo xam ne par exemple yu bëri si li ñu waxoon waxantewoon ak ñoom dafa guñ ko. léegi accord accord bi ngeen tënk 30 avril 2018 accord bi. oui lan ngeen ci def ak lan moo ci des leen dong la laa xam ne def nañ ko si mooy sur le plan de indemnité de boobu ñu yokk passé donc de 60 000 ak donc à 100 000 francs te wax naa ko sànq. Mm. gis nga dañoo yokk indemnité bi par la main droite récupérer ko si ay impôts. Mm-hmm. par la main gauche ba finalement. xaalis boobu kenn sentiru ko. Mhm. mais dama ne aujourd'hui question boobu dépassé nañ ko c'est une indemnité de logement dama ne la question centrale aujourd'hui si fekkee par rapport aux enseignants ñoom question statutaire la la question de l'entrée administrative parce que aussi l'entrée administrative aussi du question enseignant bi kese la mhm. bu ñu xeexal entre l'entrée administrative c'est pour tous les gens de l'État c'est pour l'administration dañu ko keroog actuellement même projet boobu ñu def dans le secteur donc de donc Euh, phase pilote la ñu nekk dañu jël quelques IEF def ko en pilote donc en donc en projet te pour wane sax effectivement que certainement ñoom jokkuñu ko sax ful la importance bi mu war